ndeysaan jaramalantata Gancan Gancan bo jan mereka kam Lul sen ndewenel koride, lamu pata ñaax ndeysaan birandur Birane Ndour le gendarme mané ne Gancan baru si Badou Mbaye gat ndeysaan Badou mbay sa mborongog Gancan oh, ya, bu leena fal waxo o yaala njaga ñaaw xene kon biige mo san sa morongo Ngañsen o yaal jegem jegem ale ne weg na cob ka a juuxido jam ka lubisa sen ñu leen di xamal ne daaw moom moo jël moom moo jëloon lamb ji daaw ren mu ñëwaat conformation lay doon wala nu mu demee kon bii gëmosaloxo